responsabilité euh, dañu dalal tey euh, Fatoumata Niang Ba euh, moom moo jiite UDSR ñu war a waxtaan ak moom ci li waral au lieu que mu nekk militante simple topp ci ginnaaw góor ñi mu ne dafay samp ay góor nekk ci ginnaawam moom mu jiite madame fàttu Fatoumata Niang ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci dem ak tey waaw kay Fatou maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la sargal yoo tamit si journée mois de mars bi sax buñ ne moom laay wax ba pare képp kuy jigéen di ñu dégg lu à travers la rajo mi FM maa ngi lay sargal di nuyu auditeurs ak auditrices yëpp di ñu déglu jërëjëf. jërëjëf alors ni ma ko waxee tey euh, dañuy nag euh, ñëw ci domaine bi nga nekk euh, est-ce que déjà nekk jigéen di def politique yomb na. Fatou jigéen moom xam nga tey dañoo nekk ci réew mi nga xam ne culturellement mun naa wax ak religieusement sax jigéen dafa nekk au second rang. tamit suñu jógee bëgg vraiment tey en tant que jigéen bëgg jiite euh, nekk ci kanam jiite ay góor dafay doon li nga xam ne <laughs> mënut yomb. moo tax euh, li lay jàppale rek mooy ngëm-ngëm bi ak engagement bi tamit ñi nga xam ne tamit ñoo la jiital jàppale la si parce que dinañ ko nangu ñoom ñoo lay pousse rek nga dem donc euh, si gàttal jigéen moom jiite parti ah si mim réew dafa xaw a metti alors lan moo tax yow nga jékki-jékki ne da ngay def sa parti au lieu que ngay topp si ginnaaw góor ñi comme yeneen jigéen yi nga xam ne dañu décider rester militante lu tax yow nga opté pour créer parti muy UDESA. loolu dama si rafet dama damay rafetlu question ba pare dama si sawaral tontu xam nga ñun dañu nekk ndaw ba ñu nekkee ndaw euh, dem jàngi bitim réew ba ñu jàngi jee nekk di euh, militer. ci militantisme boobu à l'époque ñu nekkoon ay ndaw si ay 2000 mën naa wax mille bi noonu ñu doon jàppale le président Abdoulaye Wade di si liggéey vraiment ji def lu ñu mën en tant que jigéen. ma nekkoon di gérer ay section féminine mais damay gis ni à chaque fois rek jigéen ñi seen kaddu même si biir euh, politique wala réunion wala tey ay décision suñ ko waree jël duñ ko far farataal maanaam dafay doon li nga xam ne dañ koy. Euh, dañ koy néewal daal duñ ko duñ ko duñ ko farataal loolu ba mu daa am chaque fois daf may metti maanaam ah waaw dëgg la xëy na tey dañoo nekk ci ci ay mouvement walla ci ay association même sooy jiitee jigéen ñi sax sa sa sa kàddu néew lool mais teewul tout le temps ñu dinañu imposer suñu bopp pour suñuy kàddu jàll mais difficilement. beneen bi tamit à l'époque ma gisoon ni ci réew mi amoon nañ ñu fi yoroon parti mais dañ leen doon compter donc ma gis nii tamit ñooñu ba ñu yoree parti li ñu doon def mooy dañu doon. maanaam njiit yi fi nekkoon topp seeni waaw topp seeni bëgg-bëgg ba pare di tàccu rek ba pare jamono jooju dafa gënoon a metti naam am na léegi sax mais jigéen ñi ñoom lu ñu leen doon gën di gisee rek mooy saa su ne dañuy am manifestation soo amee ñoom la ñuy jox ñu togg ñoom la ñuy jox ñu organiser ñoom la ñuy jox ñu sol ay yére ñoom la ñuy jox ñu njuróole ñoom la ñuy jox ñu génne seeni doom mu doon li nga xam ne ma def si jàngat ma ni laa il est temps que man en tant que femme te à l'époque j'étais très jeune nag ba may créé parti 29 ans laa amoon 28 ans ma ni il est temps en tant que ndaw jeune ma jéem a xool naka lay ñëwee défendre la cause féminine naka laay ñëwee euh, xool naka la ñu ñëw ànd xeex li nu mel te bu xeex ko falee rek ñu dugg ci soit ci langum euh, politique wala soit nga dugg si langum développement parce que am na ay femmes de développement yu bëri y a des femmes politiques y a des dans la société civile dama gis ni politique jigéen war na ko mën a def autrement ma ne nii damay créer parti pour non seulement casser suivisme boobu xool naka laay conscientiser ces femmes là gin leen a ñaax si dans le développement parce que ci peux faire une politique de développement dinaa si gën a sori si kanam naka la ñuy ñaaxee femmes yi wax leen ne leen tey war nañu mën a gëm seen bopp ñëw imposer wu engagé wu taxaw fi góor mën a taxaw pour mën a jël ay décisions yi nga xam ne dina amal njëriñu askan bi hmm. alors euh, naka nga dooree parti bi. ni ko dooree mooy dama ñibbisi euh, en 2000 en 2010 ba ma ñibbisee man ak samay xarit yi nga xam ne chaque fois dañu doon waxtaan te ñoo doon ànd bitim réew bokk école ñi ñoo bokkoon fii tamit euh, classe. ma ni leen ah man de Grand Yoff laa dëkk falaa laa juddoo màggee yaroo te Grand Yoff gi ma dëkk bëgg naa changement am fi. parce que dañu fi juddoo màggee fi yeroo fi te dara baaxu fi parce que ba ñu toog fi ñu doon ba ñuy am juróom at bi fa ñuy am fukki at di dem di dugg ji si marché bi ba ma ñëwee am 20 <laughs> ans sax marché ba ma doon duggee changé wul ni mu meloon la mel amul sa changement ba ma amee 25 ans duggaat si marché bi tamit place yi fa nekkoon ñoo fa nekkaat maire yi fa nekkoon ñoo fa nekkat wala seeni doom amul beneen changement. soo xoolee côté infrastructure naka si doonu soo xoolee tey xëy na côté salubrité soo xoolee côté développement des femmes loolu am mais leen ma dama bëgg ñu créer benn mouvement laa jëkk wax ba ma nee mouvement ñu ne ma ah Fatoumata yow li nga bëggal sa gox ñu moom la ñu bëggal suñu gox donc pourquoi pas ñu créer un parti politique ñu ñëw ànd ak yow dooleel la nga nekk ci kanam pour ku nekk sa gox goxaan sa commune sa département sa région nga xool naka la ñu mën a liggéeyee pour changer la donne. looloo taxoon vraiment tey ñu dugg si pour créer parti politique bi mu doon lu yomb lool parce que dama si àndoon nag ñu dëggu ñoom laa nekkal ba léegi ñi nga xam ne dañoo am gëm-gëm te ñoo may puus ba léegi ba fii nga xam ne ma toll fi tey ma toll fi. ay jigéen ngeen woon. ay jigéen la ñu woon mais amoon nañu suñu ñaari frères yu ñu raxoon <laughs> xam nga foo gis nag am na góor yu defoon la cause féminine. donc voilà ay jigéen la ñu woon mais amoon na ay góor yi nga xam ne ñoom vraiment rax nañ si te tamit ñoo si jàppoon donc euh, j'en profit tey pour di leen di gën a gërëm muy euh, Pape Mamadou Mbengue di Kevin ah kam dem di Samba di euh, Ousmane sama borom kër tamit jàppale woon na ma si bu baax nag à l'époque donc di wax ñi rek voilà à l'époque tamit parce que amoon nañu ay góor hmm, yi ñu si jàppale jox ñu fit tey mun naa ni si gën a bëri sax sama borom kër la su ma joxuloon fit boobu tey du ma egsi fii am récépissé bi ak euh, démarche administrative yomboon na. Euh, waaw euh, ba ñuy ñëw sincèrement damay wax ni yomboon na parce que ñun ba ñuy ñëw di ñibbisi xamuñu fi woon sax lu bëri. dañoo dem ñu ne ñu pour créer parti looy dem ñu ne da ngay dem euh, gouvernance soo fa jógee xaw ma lan nga dem préfecture après euh, ñu dem def enquête yi au ministère de l' intérieur trois mois ou 4 mois mais amuñu benn jafe-jafe nag pour euh, création parti bi ba ba ñuy jox suñu suñu document administratif bi amuñu si benn jafe-jafe man de damay wax sama aqulay taala donc loolu ci était en 2010 te à l' époque je pense c' était le ministre de l' intérieur bi tuddoon Bekaay Diop moom moo ñu signé loon suñu récépissé donc voilà est-ce que bi ngeen di créer parti bi dangeen ngeen ne woon on va directement dans l'opposition wala seen objectif moo nekkoon lëngoo ak le pouvoir bu ko defee peut-être ngeen mun a am opportunité di defal yenn seen gox euh, puisque suqali seen gox moo nekkoon seen seen objectif principal. ba ñuy créer parti bi en fait dañu ne ñun dañuy def une politique participative parce que à l'époque xamoon nañu euh, ku jugoon rek moo taxoon ñu doon wax ay parti politiques télécentre mm-hmm. ku jugoon da ngay daan def euh, rajo. wala conférence de presse ñu woo la ñun day kenn woowu ñu jox ñu lenn ñoo toog ba xam ku ñu doy ñu ànd ak moom. mais par contre ba ñuy kayee parti bi en 2000 août 2010 dañ ne ñoo ñoo toog vraiment en assemblée générale ñu ne dañuy def une politique participative lu xew si dëkk bi ñu génn wax suñu kàddu. lu xew si dëkk bi ñu génne wax lan moo xam ne lii suñ ko waxee dina tax ñii fi nekk am mu ñu mu doon njëriñ si ñoom <coughs> ñu nekk si nag ci si liggéeyee noonu ba benn moment ba ñu soogee ànd di liggéey en 2011 du ma ko fàtte mukk Abdourahmane Ndiaye bi nga xam ne mooy conseil politique wu président woowoon ma pour ñu jàppale le président tombek ma nekkoon jigéen bi nga xam ne dama sama yaram dafa sutante woon ma tukki lu yàgg ñëw ma ne ko su ma ñëwee incha allah dinaañ la woo wax la ba ñu ñibbisee nag ñu toog gis ni carrément la président Macky Sall moom son programme son projet politique gis nañu te moom def na le Sénégal des profondeurs ñu ne kii de am na yërmande bi nga xam ni suñu ànd ak moom jàpp nañ de ah Sénégal de dina mën a génn ci jafe-jafe yi mu nekk. parce que ñu ngi ko doon suivre ba ñu nekkee France ba ñu nekkee France daf ñu doon fekk si foofu maa ngi fàttali en ñëw na juste côté euh, Strasbourg ñu demoon fa fekkee ji ko fa déglu ko fa parce que en tant que étudiant xam nga ñun dañuy dañuy dañuy doon voyager di dem di xool demoon ko déglu ko ñu gis ni mi ngi wër toute la France ñu gis ni Sénégal euh, il a fait le tour du Sénégal def na ruq-ruqaan ñu ne kii vraiment c'est quelqu'un bi nga xam ne am na une politique sociale bi nga xam ne su ko fi tegee ñun mun nañu jàpp nañu day Sénégal si gis boppam ñu ne kii la ñuy jàppale mooy suñu démb Abdourahmane ba may woo fekk euh, yaram bi su tënte ma tukki lu yàgg ñibbisi tombeek tamit nag euh, soxna Aminata Tall nekkoon sama wóolëre yaay moom tamit mu gis ma bëgg ma woo ma ne ma man dama bëgg nga ñëw ñu ànd dem jàppale le président Macky Sall loolu nag euh, vraiment mu yombal lépp ñu nekk di jàppale le président Macky Sall ba fii ñu toll nii tey alors seen parti bi bi ngeen ko créé ak léegi yan moment ngeen dund jàpp yi yii c'est de grands moments ndax parti bu nekk day am jaar yoo xam ne du en tant que formation d'accord yan moment la ñu dundu ba nga xam ne jaar-jaar yooyu dafa doon li nga xam ne lu am importance su ñun tey damay wax ni en 2012 si la ñuy doogoo xëy na participer dans une élection muy une première élection mooy le président Macky Sall. moo nekkoon moo nekkoon suñu première euh, participation dans une élection bañ si dugg def nañ si jàngat bu bëri parce que ñëw nañu en tant que femme engagé wu. ànd ak euh, suñuy suñuy suñuy suñuy militant ak suñuy responsable dem xeex te ba ñu demee ànd ak ñoom tamit foog naa ni dafa yomboon parce que moment boobu xëy na le le le le peuple dafa soxla woon changement et metti woon na mais tamit yàlla daf ñu si jàppale ba ñu amoon si ndam loolu première participation aux élections boobu noonu en 2012 mu doon li nga xam ne man day vraiment dafay doon lu may marqué beneen bi mooy euh, ñëw nañu tey en 2014 en tant que femme présidente de parti on a eu des euh, responsables yi nga xam ne dañoo demoon au local ñi jël troisième dans leur localité soo demee ñoom rek dañoo amoon suñu benn suñu dañoo am suñu benn responsable ba fa nekk euh, Samba Kanté ba mu demee élection dafa am ay élus Samba su euh, mu jëkk caaral jël gi fee si Fatick ba mu demee dafa am ay élus à Mbour ñoo am fa élu ak feneen ak feneen feneen yi nga xam ne ma ne ah boobu dafa doon mbégte si man parce que tant soit peu même su dee ay benn ñaar rek ñun dem nañu élection te am nañ fa benn li nga xam ne mooy lu ñu capitaliser beneen bi mooy tey lu ma gën a neex mooy dafa am ay euh, femme yi nga xam ne qui sont dans le développement union pour le développement des femmes de Yoff ñoom UDEFI madame Mbengue euh, di jiite ko. ma toog benn euh, en deux il y cinq ans je pense ci ginnaaw ou quatre ans ñu ñëw ñu ne ñu ah madame Ba ñun day suñu sañoon mooy dañoo teg UDFI mais suñu am financement te dañoo bëggoon nga nekk ki nga xam ne yaa ñu njëkk a financé pour ñu mën a doxal suñu UDFI ñu ñëw pour ñu mën a monte seen unité de production si biir unité de production boobu noonu ñu ñëw sur fonds propre parce que man chaque fois sur fonds laay demee parce que salaire rek laa yor te tamit du ma dem banque di def ay engagement mais sama xaalis laa jël joxe ñu jël suñu xaalis man ma jël si sama xaalis samay morom yu ma àndal yépp si parti ku si nekk jël ñu dem financer ces femmes là à Yoff mais mbégte gi ma si am mooy dañoo produir ñoom ay cere defar ay eau de javel ay savon diwtiir ba nga xam ne man jour boobu ba ñuy def ñoom ba ñuy lancé seen seen seen seen vente de de de produits yooyu man dama si kontaanoon mu doon mbégte bi nga xam ne man j'ai participé au développement de de de de ces femmes ma toog tuuti dégg ñoom tey ñu ngi dem à l'extérieur di commercialiser seeni seeni seen produits donc loolu dafay doon une fierté beneen bi mooy tey soo demee xam nga dans chaque commune les réalité sont sont différentes tey soo demee Grand Yoff gi ma dëkk ñoom petit commerce moo fi gën dox njaay mi. tey soo demee Pikine ñii cuub bi moom dañuy cuub xam nga soo demee Casamance ñee xëy na dañuy bay mhm. donc euh, ñu si bari soo demee Grand F tey mun naa ne y a pas de groupement yi nga xam ne que ma ànd ak ñoom que ñu ñàkk ànd financé naa leen sur fonds propres si par rapport lu ñuy def donc sama participation dans développement des femmes dans ce pays boobu si sama li ma yor parti ma koy def dafa doon li nga xam ne dafa ma neex lool. beneen bi tamit mooy tey euh, am na beneen euh, mbégte bi nga xam mooy des fois. da ngay ñëw en tant que femme ñu lay décerner ay euh, mun naa ni diplôme d'honneur mm, <laughs> si diplôme de reconnaissance si sa engagement en tant que femme par exemple Grand Yoff gëm a dëkk wala Pikine wala Yoff wala feneen ak feneen wala Fandène wala Thiès da ngay gis des fois ñu lay décerner ay diplôme d'honneur de reconnaissance yi nga xam ne man si sama carrière de femme politique man même su dee c'est document pour certains man dafa ma doon li nga xam ne dafa neex loolu si man donc euh, yooyu dafa doon li nga xam ne vraiment sont des choses yi nga xam ne qui me marque ak tamit sama engagement politique dans euh, ma participation dans des élections que ce soit les, euh, toutes les élections qui passent depuis 2012 ba léegi donc ce sont des moments forts yi nga xam ne vraiment yaa ngi koy taxaw te yaa ngi siy nekk tamit yaa ngi koy xeex euh, mu doon li nga xam ne c'est une fierté quand tey jigéen ñi la ñuy wax est-ce que seen parti bi yéen a ngi fexe jigéen ñi di ci gis seen bopp si oui est-ce que ñu ngi adhérer pour nekk loo xam ne aussi mooy jëmmal loolu. d'accord loolu dafa doon li nga xam ne tey dama si sawar a tontu parce que xam nga parti moom bu jigéen jiitee day nekkal pour ñëpp góor ak jigéen parce que tamit au delà de nekk présidente de femme mais du ma nekk féministe su ma nekkee féministe moom parti ba ay jigéen rek laa fay teg te <laughs> loolu laay bañ parce que mënuñu dem nag saa suñu ay càmmiñ maintenant euh, dans le parti il y a des femmes très engagées y a des femmes yi nga xam ne dañu nekk dans euh, vraiment euh, des instances de décision ci parti bi ñooñu tey mën naa ne suñuy wax wala ñuy waxtaan ñooñu dinañ leen dégg ba pare balaa ñuy wax. parce que sànq nii ba may wax ak yow nii balaa may wax ak yow dama waxtaan ak jigéen ñi parti bi waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ku su nekk wax sa xalaat wax sa njàqare wax sa li nga bëgg ak fi ak voilà yow la nga yëg. pour ma mën a tamit su may wax ma dugalaale seen wax ci biir xam nga loolu rek mooy reconnaissance loolu mooy considération beneen bi mooy tamit. dans les instances de décision du parti tey euh, voilà lépp lu may def man ah dëgg la am na góor yu si nekk mais lépp lu may def y' a un cercle yi nga xam ne ce sont des femmes de trois à quatre personnes yi nga xam ne man ñooñu dama leen di jiital si lépp. donc foog naa ni tey euh, en tant que femme damaa jàpp ni rek jigéen ñi tamit suñu booloo nekk benn rek loolu ñun moo mën loolu mooy force Sénégal. d'accord justement lan la jigéen tey mun a apporter de plus si politique. xam nga jigéen. xam nga góor ñi moom euh, dëgg la dañ dans dans notre politique au Sénégal ñoom ñoo nekk presque dans toutes les instances le président Abdoulaye Wade ba mu ñëwee tamit indi fi parité mu doon lu ñuy rafetlu lool. parce que tamit nag euh, vraiment euh, loolu moom foog naa ne tey moo tax ba nga xam ne yenn changement yi am dans certaines institutions le président Macky Sall ñëw ba mu ñëwee tamit jël ay jigéen fu ñu daawul woon xalaat teg ko fa tabb ko fa mu tabb ko fa que ce la police. que ça soit dans les instances judiciaires que ça soit dans les institutions ak yeneen ak yeneen donc foog naa ni loolu dafay doon li nga xam ne dañ koy rafet moom mais damay jàpp ni tey jigéen ñun dañoo war a gën a euh, jox crédit parce que dafa des parce que xam nga tey laaj nga ma sàng jigéen la mën a apporter gis nga jigéen mooy ragal gàcce jigéen day daw ñu naan ko yaa fi defoon jigéen amul fitu maanaam soo sooxe dara jigéen amul fitu ñu dénk ko dara mu vraiment xool si li nga xam ne moom mooy euh, def ko moomeelam donc foog naa ne nit soo ragalee gàcce nga ragal yàlla nga bañ ñu naan ñu lay ñu lay joxoñ naan kële la parce que da nga am njaboot te njaboot gi yaatu la du papa yaay doom wala boroom kër wala rakk déedéet mooy ñi nga njabootee ñëpp si ginnaaw donc foog naa ne jigéen. ànd nag benn fibre bi nga xam ne tey suñ ko jëloon tey mun naa ni dans le gouvernement tey jii du président Macky Sall suñ ko defoon cinquante cinquante foog naa ni dina gën a dox sax. parce que tamit waaw parité carrément dina gën a dox. parce que ñun nekk nañoo ñi nga xam ne suñu duggee rek mooy xanaa gisoo jigéen suy sëy mais dafay muñ lu métti sëyam di ko muñ ba 40 ans de mariage wala 50 ans de mariage. sëy a gën a symbolique laay wax parce que dañuy politique dëgg de mais sëy gën a symbolique si loo gis. kiy muñ lu metti si biir sëyam foog naa ni soo ko joxee dara pour mu téel ko dina la ko téel dans la difficulté dina la ko téel dans le bonheur dina la ko téel tamit dans la contrainte donc jàpp naa ne jigéen tey suñ ko gënee euh, warmaal suñ ko gënee dooleel foog naa ne réew mi dina gën a dox mm-hmm. waaw jigéen ñi nga xam ne tey euh, peut-être dañuy hésiter pour dugg ci politique euh, yow lan nga leen di wax ndax euh, li tax ma laaj la question boobu mooy ñu bëri tey dañu gëm ne changement bi nga xam ne moom la ñu bëgg ay jigéen rek ñoo ko a def xam naa nañ na laa nag waaye ñi ñi nga xam ne dañu ragal dugg politique sama classe gi loolu leen di wax li ma lay wax rek mooy man sa classe gi moom chaque jour ma ne moom Fatou moom dafa war a dugg ci politique <laughs> parce que parce que xarañte bee ngi fi compétence bee ngi fi xam nañu tamit sañ-sañ bee ngi fi donc ragal man dafa doon li nga xam dañ ko war a euh, faxas ci seeni bopp parce que politique du dañ nga dugg rek pour nga nekk ci terrain di da nga dugg rek pour nga dem xeexi di dañ nga dugg rek pour nga dem takk sa ndigg naa da ngay jàmbaarloo mais politique dafa bëri pàcc. am na ñi nga xam ne tout le temps ñoom nitu terrain lañu am na ñi nga xam ne ñoom ñooy les têtes pensantes ñoom ñooy xalaat ñoom ñooy rëdd yoon yi ñoom ñooy joxe ñoom ñooy joxe xalaat yi njëriñ. ñoom ñoo lay dimbali ba pousse la donc damay wax ni politique dafa yaatu donc damay wax jigéen ñi politique du dem ci terrain bi rek de du dem ci télé bi rek comme ñun ni ñu koy defee nii de parce que ku ci nekk rek xëy na ak pàcc bi nga mënee xëy na ñun mënee nañu fu ñu invité chaque jour ñu dem ci télé bi wax xëy na mënee nañu wàcc ci terrain bi ba 2 heures du matin wala 5 heures du matin ñibbisi mais am nañ dama bëgg ñu xam ne tamit jigéen am na ñi nga xam ne dañuy ñëw des politiques nekk dans le développement dañuy ñëw des politiques nekk dans le social nit a ngi nekk di dimbali ay nit mais loolu xeetu politique la. nit a ngi ñëw di réfléchir di bind mais kii di bind kii nekk ci terrain bi gën a ko légitime de. Mm-hmm. loolu tamit xeetu politique la. la ñuy bind moom la ñuy doxal. mais li ngay bind la ñuy doxal à la lettre sax donc pour wax ni politique dafa yaatu. Mm-hmm. donc politique du lu may wax am na samay xarit même question yi ñu ma doon posé may leen ñëw leen tey soo leen ñëwoon ñuy liggéey dans le parti sax da di politique ba ñu ba ñu kenn du leen xam. donc pour wax ni rek politique dafa yaatu te ku si nekk rek am nga sa façon bi ngay politiquer te soo toogee sa kër denc li nga xam boobaa dafay doon yow participer woo si si sa si sa doxalinu réew. donc damay wax ni tey da ngay toog sa kër bañ a politique nga gis kenn ki nga xam ne tey yow yàq ëpp si lépp si xam-xam si yërmande si si si si si si si doxalin moom mu ñëw di la di la di la diriger fekk déedéet dafa am moom sañ-sañ bi. yow amoo sañ-sañ bi moo tax ma ne nañu génne li nekk ci ñun xam ne politique dafa yaatu. Mhm. politique du télé politique du terrain. Mhm. mais politique ëmb na lu bari. effectivement alors gannaaw bi ñu waxee seen ay euh, jaar-jaar euh, prix yu leen gën a marqué yu neex yi est-ce am na difficulté yoo xam ne dund ngeen ko. Euh, ci seen parti ci politique yow ak sa groupe restreint boobu surtout jigéen ñi loo xam ni peut-être marqué woon na leen ba ngeen xaw a yaakaar ne peut-être est-ce que yëf yi du fi yem ak yooyu yu metti moom li ngay dund lu neex mais tamit da ngay dund lu métti parce que wax naa ko sànq sooy politique chaque fois dañ lay bëgg euh, nga nekk jigéen nekk jigéen bi nga xam ne tamit ngay politique xëy na amoo yeneen nit yi nga xam ne mën nañ la jàppale dañ lay toujours yóbbu au second plan parce que man leen lay euh, ŋaññ Sénégal fi ñu nekk da ngay politique am compétence am engagement am gëm-gëm nag am conviction ñu gis ay góor nekk fële. parce que am nañu ay position yu stratégique di jàppale ki nga xam ne sax yow kooku naam yow li ngay def sa defu ko mm-hmm. mais dañ koy jàppale parce que yaa ma neex la parce que ñoom ak ñoom ñoo ànd. discrimination boobu moom métti ba nga xam ne ñun dañ koy dund ba nga xam ne dafa doon li nga xam ne dafa métti parce que tamit des fois tey nga toog man lenn dund naa ko mu métti ma lool. mooy jour bi ñuy xam ne dañuy def euh, lancement wu euh, lancement wu kii euh, campagne wu président Diamniadio jour boobu ñu toogoon ñu ñëpp on était beaucoup de partis ba ñu toogee ñu ñëpp ma gis si ñuy ñu jàppo bi si jàppo bi ñu wax parti jàppale président yëpp coalition yeeg ay yëpp et te jour boobu pourtant jigéen moo doon ñoom ñoo doon liggéey pour def affaire affaire affaire liste yooyu ba ñu paree maa ngi toog ak ay kilifa ñu ñu ñëpp ñu toog ci saal bi déglu xaar président wax gisuma si sama turu parti jour boobu laa am lu ma metti sama carrière politique. ok ñu off la. ñu off ma. te yow xam nga ne indi nga dara. te ñoom xam nañu ko indi naa dara ba ñu paree dama bind à l'époque message à l'époque le directeur de cabinet du président ma wax ko mu ne ma lii c'est inadmissible. parce que ñun xam nañu li nga def. su doon fàtte wala c'était fait exprès. ci sa euh, fàtte wala foo fait exprès loolu duma ko du ma du ma yaakaar ni sax fàtte la parce que ñi defar euh, mën naa ni euh, liste boobu <laughs> ñoom dama doon ba ba mun naa ni une semaine sox ñoo nekkoon ñoo di xeex suñu suñu parti. donc tayef la moo tax ma ni des fois jigéen si boppam mooy xeex moroomu jigéenam si biir si biir politique. tant que tamit nag jigéen ji ñu ngi indi jalousie ak ak maanaam naan damay kar faatu mii parce que faatu xëy na su demee man duma dem amul sens. Mm. parce que man dama jàpp man sama àddina sama àqulaay taalaa lu ma war a am sama àddina dama koy am. Mm. damaa jàpp ni tamit man sama politique ku mu nekk ak président Macky Sall ku mu nekk keneen dinaa xeex ci sama politique ba lu ma war a xeexal sama réew dinaa ko xeexal mm. fu ma war a egg man maay man dama jàpp ni maa ko war a xeex pour egg fa. lu ma war a def damaa jàpp dinaa ko def pour egg fa mais damay wax heureusement ba ñu am un président lucide bi nga xam ne tey su fonkul woon ay njojam jàpp naa ne tey ñun du ñu egg si fii parce que man si ça aurait pas le président foog naa ne génn naa si part si coalition bi yàgg na. Ah waaw parce que ay xeexante ay ay ay ay injustice yi nga xam ne dañ koy dund saa su nekk. ay ah, injustice saa su ne. Absatou Sidibé de waxoon na fi coalition bennoo d'en haut bennoo d'en bas. am ñoo xam ne dañ leen faale am ñoo xam ne moom. kenn toppatoowu leen. man damay wax ay injustice yi nga xam ne ñun en tant que femme man en tant que jigéen may jiite parti nekk si biir mi te xam naa ne ñëpp xam nañ damay jàpp président Macky Sall parce que nëbbu ko mais xeex bi dafa commencé carrément si si biir nee naa la jour boobu ki defoon loolu euh, euh, def ko jigéen mi ngi woon si biir. ci pourtant ba ma pare dama bind message ñoom seen bopp excusez et tout rafetul parce que jigéen nekk si mbir di jàppale nga ñëw ñëpp toog nga omertu ko dafa métti loolu nee naa mag ma njëkk bu ma dund ma gën a métti moom loolu amul. tey ba ma nekkee tey euh, di liggéey fri fi may liggéeyee mais dama fay am ay jafe-jafe jafe-jafe yu metti te jafe-jafe yooyu ma metti yu may dund te pourtant sama waa parti ñoo ma koy teg te teewul maa ngi gën a jàppale président Macky di ko jàppale. parce que dama nekk nit bi nga xam ne man man lu may def dama koy def avec conviction man c'est le Sénégal ki m'intéresse ba pare beneen bi mooy damay wax en 2011 ba ñuy jël engagement di jàppale dem au côté de Aminata Tall mu ñuy jàppale le président Macky Sall ma nekk chef de parti di ko jàppale tour bi mu def le Sénégal la ak sa politique sociale bi bi bi nga xam ne mu ñun moom la ñu amoon pour pour wax ko loolu moom moo ñor ba pare le président nekk nit bu ma naw toog naa ak moom waxtaan naa ak moom te sincèrement ba ma su jógee suma xel dafa gën a dal. moo tax ma ni man lépp lu ñuy def rek di ñu ko xeex ñun jigéen dans le parti bi ñu nekk wala dans la coalition bi ñu nekk. man c'est la personne de Macky Sall qui m'intéresse. moo tax tey ñu togg fii. d'accord alors ay coups bas yu jóge ci ay góor spécifiquement nga xam ne lii moom xeeb jigéen rek moo tax ñu di ko def est-ce que est-ce que dund ngeen ko UDSR euh, notamment yow mi ko jiite. waaw loolu kay moom foog naa ne dañ koy euh, dañ koy dund parce que moom li ma la wax sànk rek góor yooyu dañuy bëgg def ay guerre de positionnement pour jàppale yeneen moroomu jigéen. ok ah yeneen jigéen la ñuy <laughs> propulsé d'accord la ñuy la du question góor yi dañ koy def dañuy ci mani la en en politique loolu moo gën a métti suñu politique bi. Mm. dañuy gis ñu xam ni faatu mii day xam nañu dara ñoro ko lu dul président Macky Sall mais dañuy jël keneen ki nga xam ne kookoo leen arrangé. Mm. daal kooku ñu mun ko manipuler après kooku léegi ñu mun ko ñoom ñoo koy xëy na xool nu ñu koy maîtriser wala xëy na kookoo leen doy wala kookoo leen amal njëriñ wala kookoo nekk xëy na ki nga xam ne ñoom suñ ko tegee xëy na seen njëriñ la mm. mais dama bëgg man dama ne politique boobu tant que mi ngi am Sénégal mm. non kon dina métti lool suñu politique senegal euh, jigéen yi mu mu mu mu mu mu ñu am ñu am si dara ñun wala ñu suñu voix compté maintenant nag loolu su amee teewul nga takk sa ndigg jàmbarloo ak ñoom liggéey xam ne carrément dara ñorul la lu dul yow sax réew dox. ak ki nga xam ne moom pour programme am moom nga ànd ak moom ngeen jaay ko sénégalais ba ñu jënd ko jox leen seeni voix dans les urnes ngeen dem démocratiquement foog naa ne loolu tant que yaa ngi koy gëm rek fi nga war a egg di nga fa egg moo tax ma ne en politique jigéen pour mu il faut que mu gëm-gëm am engagement am amour nag si li muy def am conviction tant que ñeent yooyu mi ngi ko am rek jigéen bu bëgg politique. di nga si sori parce que day metti ba nga toog sa biir néeg jooy ko. ah oui léegi nag soo toogee sa biir néeg jooy ko sa néeg nga ne damay bàyyi mais boobaa yow boobaa yow da ngay ci ci baisse mais une personne qui baisse les bras qui abandonne kooku cette personne n'a même pas la raison sa raison de de de de continuer de de de vivre. wala commencer sax dara. <laughs> man dama nii nit buy abandonné kooku du nit nit fu muy méttee ngay gën di continuer di dem te damay wax ni heureusement ba nous avons un président lucide. bi nga xam ne xam ne ko si nekk yaay kan ba nga xam ne soo toogee ak moom dina la dalal donc man foofu laay waxee mais daal en politique moom jigéen mooy xeex moroomu jigéen na kon est-ce que yaa ngi yaakaar Sénégal bés ñëw jigéen ñëpp porté candidature benn jigéen ñu yóbbu ko à la présidence de la République loolu lu mën a nekk la mais dafay fekk mu nekk une longue bataille lu doon li nga xam ne suba la wala ginnaaw suba parce que tamit soo xoolee wax naa la li ma njëkk wax sànq culturellement sociologiquement religieusement il y a de facteurs qui font que ah xaw ma ndax les Sénégalais sont encore euh, prêts pas. mais loolu ñun ñoo ko war a liggéey. ci naka. si naka mooy su suñuy comportement. parce que sànq am na li ñuy wax mooy xam nga su may wax tey euh, jigéen soo xoolee sama jox la benn exemple bu terre à soo xoolee dans les délégations yuy dem dans les chefs religieux jigéen du dem. waaw bëriwul de. <laughs> non non jigéen du dem. wala benn bu bëree ba bari benn lay nekk musóoru topp ci ginnaaw. waaw topp ci ginnaaw pourquoi parce que tamit tey doo dem en tant que jigéen nga naan yow yaay dem di waxtaan ak sëñ bi. Ah. parce que ñun jigéen re ñun suñu suñu diine moo ñu mayal tey jigéen sa jóg naan dafay dem si sëñ bi di tëju pour wax ak moom dañu woon ci dëgg. tey si évêque bi sooy dem sax jigéen duy dem góor gi mooy góor bi mooy gën a dem. donc yooyu gis yooyu dafay nekk ay. réalité yi nga xam ne tey euh, pour ñu jékki-jékki jóge ko fi rek jëlee ko fi dina xaw a dina xaw a yéeme. Hmm. moo tax ma ne il faut vraiment mu doon ci diir bu gudd gudd gudd gudd lu ñuy lu ñuy lu ñuy waxtaan walla lu ñuy togg la. beneen bi mooy tamit tey euh, soo xoolee tey euh, même àlla la à l'Assemblée nationale. Hmm. dëgg la on parle de parité mais la parité n'est pas respectée en tant que ça. parce que tamit nag vraiment dëgg la dañ koy wax ci gémmiñ ni am na rafetlu nañ ko mais am na lu bëri lu des. tey soo xoolee tamit dans le gouvernement mais ah jigéen yi xanaa damay jàpp ne xanaa dañu amul suñu ñun confiance rek <laughs> mais bëriwuñu alors ko tey peut-être xëy na comme li jigéen tey moo gën a gëm sax njiit mi ko xëy na góor ñi. parce que tey damay wax ni rek vraiment euh, ñun nu avons no valeurs ñun yàlla dafa am lu ñu mooñaale mooy jub duma ñi nag. amul ñu dëng nag mhm. duma ko wax mukk mais sur cent femmes soo xoolee vraiment quatre-vingt-dix pour cent yi am na lu ñuy ragal mhm. iman bee fii fi gëm génn bee fii mhm. am nga jigéen dafay am lu mu jommal boppam gis nga jigéen loolu mu jommal boppam moo koy gide ba mu mën a egg fu mu war a egg donc damay wax ni rek euh, Fatou ah ñun jigéen day foog naa ne suñu ginee jàppale dooleel ñu ñun tamit ñu gin ñu fësal ñu gin ñu jox confiance foog naa ne day xaw ma ban jamono la de mais jigéen war na mën a xool naka lay jiitee réew mi. démb ak tey ngeen di teewlu ci réew mi FM mois de mars bi xam naa ne yéen góor ñi dinañ xaw a waaye jigéen ñi la ko fas yéene jagleel bu ko defee tamit ñu ñëw ci domaine yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu tey nag ñu tànn politique dalal ci njiitu parti ndax ni ma ko xee sànq néew na tey jigéen bu jiite parti euh, ci ci Sénégal alors euh, ñu euh, wax ba tey Fatoumata Niang ba ci wàllu politique bi est-ce que yaakaaroon ni au lieu que xaar góor ñi di fësal ndax tey parti yu bëri góor ñi ñoo ko jiite sphère de décision yu bëri góor yi ñoo fa nekk est jigéen ñi waruñu commencer un travail à la base ku mel ni Fatou Sow Sarr ma koy nuyu au passage moo nekkoon sama gan dimanche bi ñu weesu euh, mi ngi initier benn projet boo xam ne jigéen ñi la bëgg propulser au niveau des collectivités locales est-ce que jàppoo ne loolu solution la ndax bu ñu demee à la base tàmbali ci mairie yi def loo xam ne gox goxaat dañ ciy teg seen bët loolu mënut a nekk levier boo xam ne buñ ci sukkandikoo dinañu jëm ba ci ba ci kaw pourquoi pas présidence de la République euh, sous peu mais loolu que dégg naa ko mais man yëgum euh, nekkuma si au courant parce que euh, dama ko dégg ñu koy wax rek loolu dafay noonu lu ma rafet rafetlu parce que tamit suñu en tant que femme Fatou Sow c'est une euh, sociologue vraiment euh, très respectée au Sénégal euh, mu doon ku ñu naw si ay xalaatam ak si léppam de même que tamit Hélène Tine nekk tamit une femme très engagée ñooñu ay référence lañu si réew mi très engagée vraiment bëgg lu muy def tey soo xoolee tamit ku si mel ni tey Aïda Mbodj mi nga xam ne mi ngi fële ñooñu damay doon damay assemblée ngay gis ñii ay jigéen lañu yi nga xam ne vraiment dañ leen naw soo ñëwee tey ñun dans dans dans notre coalition y a une euh, y a Awa Gueye ah mi nga xam ne moo jiitee euh, vice-présidente donc ñooñu dañuy nekk ñi nga xam ne tey ay jigéen lañu ñu ngi leen xam ci seen i engagement ci seen kii ak ñeneen yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi politique ñi ay élus lañu ñii ay jeunes. leen dégg ci lu ñaaw nag waaw ci parce que ñun dans notre coalition am nañu ay élus yi nga xam ne vraiment ay jàmbaar lañu ku ni Yaya ku mel ni Siré Sira Ndiaye dañuy gis ne ce sont des jeunes engagés te ay élus la ñu nekk biir assemblée nationale te suñu waxee ñu naw leen loolu dafay doon fierté suñu ñi nga xam ne ñu ak ñoom ñoo tolloo âge tamit ñooñu vraiment tey jigéen yooyu tey ñooñu ñooy nekk la relève ah ëllëg si biir tey suñu continuer tey parce que dañuy politique politique bi du yamul tey fii de dañuy politique pour vraiment pour pour ëllëg pour suñuy doom donc foog naa ñi engagement yi nga xam ne ñii ñii nga xam ne damay cité rek c'est ñooñ que ñooñu laa mën a ñam mënuñu cité ñëpp suñu suñu xoolee ñoom seen ak aji mbergaan kanute gis nga engagement am suñu xoolee genre ñoo jigéen yooyu seen i engagement foog naa ne euh, da sa xel dafa dafay daal parce que tamit nag da ngay xam ni ñii tey ëllëg ñooñ ñoo fi nekk tey ay ay ay euh, comme seeni mantulaay jéen nag ñi fi nekkoon <laughs> avant da ngay xool ñii ñooy ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi woon suñu ginnaaw ah ay awagee kebee dañu xam ne ñii tey ñooñu relève ñooñu donc pour man tamit tey jigéen ñi euh, dama jàpp ñi rek mm, engagement bi suñ ko amee ak détermination bi ak gëm-gëm bi ba pare li may waxaat dama koy waxaat damay waxaat ñu joxaat ñu confiance bi dinañ mën a dem tey concept bi nga xam ne moom la Awa euh, faatu Sow Sarr def man dama koy rafetlu parce que concept boobu ñun dafa fekkoon sax ñun euh, euh, am na ñu ngi si doon xalaat yàgg na il est temps jigéen yi ku si nekk jóg dem jël mairie yi. gox ba nga dëkk. gox ba nga dëkk man gox bay ma dëkk à Grand-Yoff man chaque jour ma def émission man sama mbëbët mooy un jour diriger cette mairie là. et pour loolu dafa laaj engagement dafa laaj gëm-gëm dafa laaj détermination mais tamit jigéen ñi xam nga ñoom suñu demee ba si biir ba ngeen tënk benn biir ba dem ba si biir suñ doogee fa fi ñuy décider ñoom soo waxee rek dañuy waaf la plupart. Ah <laughs> kon kon kon ragal tuuti moo nekk ci ñoom. aussi d'accord cette peur là cette crainte là la ñu war a jël ñu teg ko ne le. du gëm ne mën nañu dem daal. Ah, am nañu si bëri. suñu demee ba nga xam ne instance de décision yi góor yi suñu weñee suñu loxo rek suñu weñee suñu loxo rek xam nga comme ni ñu koy defee si sëy rek ñu weñ suñu loxo rek dañuy naan ah waaw d'accord garaawul <laughs> <laughs> moo tax soo waaw bàyyi parce que xëy na la ñuy mooñaalee moo tax soo seetloo si sooy dem peut-être dans dans dans des élections wala dans des joutes électorales euh, dina am ñuy dem mais dañuy néew lu tax muy néew mooy fa ñuy décider suñu fa eggee soit dañuy def des coups tordus góor ñi ñoom suñu demee ba nga xamee si décision ba ñu xam ne kii war na mën a dem ñu ok ñu jéem a dindi turam te keneen ki nga xam ne mooy ko góor ko parce que ñoom góoru moom dafa foog ni euh, politiciens yi les hommes dañoo foog ni rek euh, mbir mi. yëfu góor la terrain bi waaw yëfu góor la. ñoom mënuñu am cet cet esprit de discernement pour xam ni jigéen mën na am góor mën na am. est jigéen itam def nañ seen preuve. waaw loolu dafa il faut que jigéen ñi def seen preuve bu baax. y naa kii qui le parce que def seen preuve moo tax tey euh, euh, kii nu mu tudd Yaay Fatou Diagne nekk mairesse dëkkam Thérèse Faye nekk mairesse dëkkam mm-hmm. de Mbodj nekk mairesse dëkkam. ak ñeneen ay exception lañ nag. xam nga exception yooyu c'est parce que ñooñu am nañu sañ-sañ. Mm-hmm. dem il faut tamit ku jigéen ki am sañ-sañ am engagement am dem. bañ a ragal gëm li Fatou Sow Sarr woote moom laay woote. Mm-hmm. parce que loolu noonu mooy li am loolu mooy mooy vraiment fekkee jigéen dañoo bëgg doxal réew mi il faut que ñun ñu jóg nekk benn ba pare bañ am benn esprit partisan xàccandoo dóorandoo mais tamit est-ce que ñun jigéen suñu booloo mën nañ nekk benn. parce que tamit nag xam nga ñun nit sooy wax da ngay wax rek ak sa aqulay taala mm-hmm. man li may wax dama koy gëm est-ce que suñu booloo mën nañu nekk benn. moo tax tamit est-ce que góor ñi ñoom si seen boppam tout le temps lu tax ñuy am euh, raison su ñun mooy ñoom suñu mbooloo dinañ nekk benn du am ay xiiroo ay ŋaayoo comme ni ñu waa jalousie yooyu comme ni nga xamee si jigéen donc il faut que tamit y a la il faut que tamit ñu xoolaat le comportement des femmes il faut que ñu ñu ñu ñu xoolaat ñun suñuy jikko il faut que ñu defaraat ko. te ñoo woote assise des femmes boobu. waaw pour pas. <laughs> waxtaanee jigéen ñi waxtaanee jigéen ñi. Euh, parce que tamit euh, politique yu bari. effectivement politique yu bari bu ñu ko tegee euh, surtout venant des femmes da nga ciy gis carrément ni njaboot lañ ciy jiital njaboot lañuy ñuy sóoraale mooy yërmande bi nga doon wax sànq mais aussi y a des yoo xam ni faw faaw ñu saafara ko. y a des mooy mots yi ma la wax rek. Mm. c'est la comportement. c'est vraiment voilà la femme son comportement au sein de de la société. Mm. te loolu xam naa loolu moom kii la ni ñu koy xatee sax loolu moom émission la. <laughs> loolu rek émission la wopp yooyu daal tant que saafara wuñ ko comme ni nga ko waxee dina jafe. alors euh, ñu wax ci jigéen euh, di politique. politique réunion yi des fois ba yenn heures yi euh, ay rencontres improvisées marché yi meeting yeeg ñoom seen surtout bu élection di ñëw waa loolu jigéen boole koo këram yomb na est-ce que nekkul tamit benn frein quelque part si si si jigéen ñi. loolu nag yombul te foog naa képp kuy jigéen. te ngay politique euh, loolu di nga si am am nga si peut-être bés jafe-jafe walla dara mm. parce que dafa metti nag xam nga ngay génn di politique di génn di dem élection di génn dem si mbedd bi bàyyi sa borom kër bàyyi sa njaboot loolu mooy dafa metti mais lenn rek laa siy wax dama si wax ñaar parce que gis nga politique nag mbubb la dangay bàyyi si mbedd bi mm. soo duggee sa kër. jigéen nga dangay ngay sëy su fekkee da ngaa foog ne mbubb bi nga sol ci biti mbubb boobu moo nekk si si biir kër gi ah boobaa foog naa foofu lay jafe-jafe di gën a amee beneen bi mooy xam nga lan moo si gën a euh, li nga xam ne man moom si gën a neex ma wax si mooy jigéen bu sori si politique dëgg day fekk boroom këram daf ko si jàppale bu baax. man moom damay wax depuis ba ma nekkee étudiant ma sama borom kër ba ma nekkee étudiant laa xam jàngandoo fag ba ma nekkee étudiant may politique moom mooy siy jàppale tey ba ma ñëwee di créer parti bi xam nga wax naa ko ba may wax si si njëlbeen mhm. moo ma njëkk a moo ma njëkk a supporté na carte jënd na carte carte zéro zéro bi sax moo ko jënd <laughs> moo njëkk a jàppale ma dimbali ma tey jii nii mun nga dem di génn di politique sax xëy na sa goro sax xaw a kii. mais moom da ciy jàpp di ma si dimbali. di ma si puus fu ma découragé moo may naan bul découragé comme que moom vraiment taalibe Cheikh la te nitu kii la daf moom soo suñu kër moom dafa neex. kii murit la kii <laughs> taalibe Cheikh la xoolal dafa may wax di ma teg si yoon di ma wax ay addis di ma si di ma si di ma jox ay ay ay misaal wax na ma gëmal bul bàyyi mm. donc kooku man moom support tey. amul chance boobu nag ñoom. am na ñi nga xam ne dañ siy nekk xëy na seen borom ko sonal leen lool. ba mm. mooy am na ñi nga xam ne politique moo moo yàq seen diggante ak seen borom kër te bëri na am na ñi nga xam ne nag seen i borom kër ñoo leen di jàppale. donc damay wax ni ñii politique nga xam ne ñii seen seen diggante seen seen sëy yàqu na si. Mm. mais ñu si bëri tey dañ si sori mais seen borom kër ñu ngi siy jàpp bu baax. Mm. te loolu man de bokk naa si ñooñu. mais loolu lu koy waral mooy ñun suñu comportement bi ñuy adopté à la maison. parce que tamit nag. su ñu xamee ni dañuy politique ci biti mun nañ nekk gaynde man à la télé sur le terrain man beneen Fatoumata laay nekk. <laughs> boo ñëwee si kër gi nga nekk keneen. mais su ma ñëwee si kër gi moom je suis la femme soumise sama kër samay borom kër di dugg si waañ di togg di toppatoo ndéki di toppatoo lu may yor toppatoo di foog samay doom di foowal samay mag ak samay rakk samay waajur ak samay goro te damaa jàpp ni tamit nag ah euh, politique dafa mel ni rek nit buy dem bureau di liggéey. soo nekkee tey euh, njit ci sa ci sa ci sa bureau soo fay jógee gis sooy génn sa bureau fa ngay bàyyi sa robu njiit bi soo ñibbisee sa kër ci es une femme parce que tamit nag quand même nous avons nos réalités nous sommes euh, nous sommes dans dans un pays où pour cent sont te tamit ku si nekk xam nga lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si si si sëy le rôle de la femme <laughs> dans la religion musulmane donc euh, tamit képp kuy di di di di jullit ba ngay jàng wala ba nekk xale say waajur dañ lay tàggat si lan mooy sëy donc tamit xam nañ tamit fekkee da ngay sëy di politique wala nga nekk femme leader d'opinion ah war nga am yow yaa war a xam fan nga war a yem. la part des la part donc may wax ni rek politique dafa am fu mu yem. Mhm. kër gi dafa am fu mu yem mais tamit borom kër gi tamit moo si joué lu bëri pour nga sori sa politique. am na solo alors ñu ñëw nag euh, def euh, taxaw seetlu euh, ci dundinu jigéen ñi tey ci Sénégal en tant que politique certainement di nga dem ci gox yi di dem ci goxaat yi di nga am ay ay écho yooyu am par rapport ak situation wu jigéen ñi boo ko doon méngale ak fukki at yi nu weesu tey ban évolution nga gis ban jëm kanam wala peut bu dee dañoo taxaw demuñu puusuñu paasuñu itam <laughs> nga wax ci sa xalaat. mais damay gis nii tey am na évolution mais naam du doy. parce que loo gis tamit doyul mais tey am na évolution man gis naa ni tey su may wax rek sur le plan des réalisation du président Macky Sall parce que damay wax ni si euh, nguuru Macky Sall dañu gis ñu ne jigéen day maanaam suy euh, am doom césarienne bi ñu def ko gratuité te xam nga ni fii képp ki nga xam ne yaa ngi am doom sa bakkan nga faatu si euh, ah taux bi dafa élevé césarienne nit daaw ko mën avant mu metti lool ba nga xam ni su ko defee sax balaa ñu koy césarienne sax ndeysaan mar de taalim ñu gis ni si nguuru Macky Sall président Macky Sall si liñ ñëwee gis ni tey cancer du col de l'utérus cancer du sein président ñëw allégé ñu maanaam payoor gi su lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri tey gis nañu bu baax ni tey si nguuru Macky Sall ngay gis ni tey microfinance euh, financement des femmes le président a mis beaucoup de milliards dans le financement des femmes en fait ñun dañu may wax ni tout le temps suñu wax dañuy ngay politique moo tax <laughs> damay ñun dañuy sant ba ñu amee un président bi nga xam ne damay wax il a la meilleure politique sociale du Sénégal te su fi jógoon sa lekk la lekk xam nga tey Fatou du ñu waxee rek kuy politique wala kujje mm-hmm. gis nga tey euh, fii lañ nekkoon Sénégal gis nga couverture maladie du lu bon lu baax la de bourse familiale lu baax la de tey gratuité césarienne yeeg euh, ak feebar yi nga xam ne tey moom la jël en charge par rapport au femmes yëpp tey lu baax la de te xam nga ni keneen kuy ñëw ëllëg su ñëwee du mënu mënee su ko dindi. bu amalee njëriñ waaw parce que tamit ki nga xam ne dañ soo césarienne gu beneen président bu ñëwee da koy dindi. ba <laughs> jigéen yee génn dem ne dañuy dem eh, toog jàkkaarloog moom mm. wax ak moom tey jii nii cancer du col ak du sein suñu ñëwee tey yi fii président def ñu da koy jëndi ah boobaa jigéen ñi ñooy jóg ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne xëy na mënoon nañu ko cité mm. mais dama xam ne rek tey li mu fi teg dafa doon li nga xam ne dafa amal njëriñ askan bi mm. donc fook naa ni tey eh, yooyu noonu président def fi su su su su dafay doon li nga xam ne c'est une avancée si jigéen ñi beneen tamit mooy gis nañu dinay déglu. jigéen ñi mais des na. Hmm. waaw. tey euh, ba ñuy def kii hmm, jouru euh, concertation wu euh, par rapport à la Covid. Hmm. man su ma sañoon femmes yi ñu woo leen kuréelu femmes yi boobu noonu parce que xëy na ñun amoon nañu suñu ñuy wax. parce woo nañu religieux yi woo nañu chef coutumier yi woo nañu jeunesse bi. mais woowuñu ñu yi. jigéen ñi ñoo nekk au devant et à la fin même de la lutte on on nous oublie. donc euh, si yooyu noonu bëgg naa vraiment tamit ñun fekkee yaa a des concertations. jigéen ñi am seen. est-ce que jigéen nañ ba mu kuréel goo xam ne bu légitime la. mooy bu ñu mën a demee. mooy li nga yi booloo nañ. xam nañ ne am nañ kuréel. jeunes yi noonu mais est-ce que jigéen ñi am nañ loo xam ne moo leen moo leen jaboote ba ñoom lu ñu xew la ñu mën leen a woo. mooy li ma la wax sànq rek par rapport au comportement. par rapport tamit euh, voilà ñun suñuy jikko naka la ñuy demee parce que tamit y a cette division qui la loolu dañ koy wax y a cette euh, vraiment euh, union bi des na parce que tamit am na jigéen dañuy ubbi kuréel tey jii comme ma jox la exemple nit mën na jigéen dañuy yëkkati benn mouvement suñu yëkkatee mouvement mouvement boobu c'est pour toutes les femmes par exemple toutes les femmes yi nga xam ne ñii dañuy politique wala dara mais da ngay gis ni tey jigéen ñi suñu suñu yëkkatee mouvement boobu duñu woo peut-être xëy na yenn femmes yi nga xam ne bokk nañu si ku jigi wala yenn femmes yi nga xam ne bokk nañu si pouvoir bi peut-être xëy na des fois da ngay gis ñu woote ay mbir mais peut-être xëy na affaire de xaritoo la wala kii moom a neex wala kii neexuma donc loolu tamit tant que ñu ngi koy def du mën a am mais tamit damay wax ni tey même sax jigéen ñi suñu booloowul war nañu mën a tey ñu ne d'accord ñoom mën nañu imposer ñu booloo. war nañ ñu ko mën a imposer. organisez-vous dañuy def nangam. waaw war nañ mun ne carrément vous les yéen jigéen ñi jéem leen a xool naka ngeen di organiser woo bës boo leen organiser woo ñu doole leen fii. boobaa tamit dina doon li nga xam ne dina dina dina am solo. mais damay wax ni rek euh, vraiment. si si si si li ma li ma gën a neex vraiment man mooy la césarienne parce que yaay laa parce que am na njaboot naa li ma gën a neex tamit mooy col de l'utérus dama xam ay mbokk ak wala ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne def mm-hmm. a neex mooy cancer du sein li ma gën a neex mooy la microfinance tey rôle bu muy joué si ne ñii ñu ngi Ziguinchor ñii ñu ngi Kaolack ñii ñu ngi ngi Dakar ñii ñu ngi Pikine gis nañu vraiment tey ñu ngi leen di fekk si dans leurs unités de production ñu ngi leen di fekk si dans leur mouvement du Sénégal te ñu ngi si nekk di leen si jàppale donc loolu dafay doon li nga xam ne daal si euh, rafetlu naa ko te gis naa ko bu baax président di ko dox ak ñi nga xam ne ñoom la teg pour ñu doxal loolu. peut-être mooy nekk laaj bu mujj bi li tax nag ñu bari xëy na di xaw a hésité pour euh, teg jigéen si yenn yenn yenn place yi mooy dañu wax ne dañu mun a yàq. Euh, bokk na ci gàkk-gàkk yi nga xam ne mi ngi ci ñun dañuy liggéey un an ñëw benn jour ci xew rek ñu yàq lépp mu jeex tàkk donc ñenn ñi tamit góor yi surtout dañu dañu gëm loolu tellement dañ naan jigéen moom nay am toujours rek nekk ci ginnaaw bon li ci des euh, góor ñi di doxal euh, loolu itam yaakaaroon ne yéen femme leader yi war ngeen ci mën a liggéey. mais loolu noonu loolu dafay doon li nga xam ne sax dama si dama dama si sawar a tontu gis nga Covid bi mooy maanaam mbas mi am. Mm. dañ si war a jëlee jàngat parce que man maa ngi si euh, directoire des femmes Benno Bokk Yaakaar dañ si toogoon ñun ñii ñu am xalaat ba ñu amee xalaat ñu doon waxtaan am benn concept bi nga xam ne dañ ko fa teg concept bañ ko tegee ñu ne e-cérémonie maa ngi fàttaliku jour boobu ñuy waxtaan sax euh, e-cérémonie boobu bañ si toogee ba waxtaan si ba ñun ñëpp ñu tombé si d'accord l'idée noonu li nga xam ne tey par rapport ak mbas mi am gis nga mbas yi bu mu amee ba léegi xew yi wàññeeku na de amatul. Ah, ku si nekk tey même sa mbokk day xewle sax mun nga ñàkk bañ a dem. Mm-hmm. mais li ngay yóbbante dina egg li ngay ndawtal dina egg leneen dina egg te tamit gis naa ni si mbas bi mu amee tamit même ndawtal yi sax su doon nekk cent mun naa ni vingt la. Mm-hmm. wàññeeku na bu baax. Ah. tamit foog naa ni après Covid dañoo war a ñun changer les comportements. jàng ci ay leçons. tirer ci des enseignements xam ni carrément l'après Covid pour ñun ñii tamit jigéen ñi war nañ si mën a jàngat lu bëri. parce que man mii am na samay rakk samay mbokk ak samay lii am ay xew ni ñu si doon demee demeewuñu ko si ni ñu fa doon defee defeewuñu ko te si lu bari dafa changé te man ni ma ko defee noonu la ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen a defee mais loolu nag du freiné tey njiit pour mu jël teg. Euh, tabb jigéen si si si si si à la tête de de de de quelque chose wala fenn pour mu jiite pourquoi parce que comme li ma waxoon sànq rek euh, jigéen ñi man damay wax sax sooy xool sax au Sénégal taux de taux de scolarisation des filles moo ëpp sooy xool sax au Sénégal jigéen ñi ñoo gën a intelligente <laughs> sooy xool Sénégal jigéen ñi ñoo gën a ñoo gën a am pas-pas ñoo gën a am engagement mm. mooy lu ma wax sànq rek jigéen am na lu muy bañ am na lu muy bëgg mm. te gis nga dans ta gis nga si si si nit doomu aadama fekkee dafa am lu muy jom kooku war nga ko mën a dënk li nga xam ne dina la ko liggéeyal parce que tey ba ñu jëlee ANACIM teg ko à la tête la police dafa dox bu baax a baax a baax a baax macha allah donc foog naa ni tey te police dafa garaaw. Mm-hmm. te ku ko fa tegee te dañ ko déggal. Mm-hmm. liggéeyal ko moom tey mu liggéey liggéey bu mucc ay. kon foog naa ne kooku rek c'est une référence. am na am aussi boo xam ne jigéen bu nekkee yenn niveau yi daf ko war a incarner. waaw mais jigéen soo ko joxee soo ko dénkee dara man euh, euh, euh, nekk naa chef du des ressources humaines du personnel du conseil économique social pendant six ans ngay gérer plus de trois cents personnes ma nekk ndaw am samay papa samay maam samay yaay samay lépp dama ko def avec rigueur parce que xam naa ne nit même muy jigéen wala góor sax suñu la dénkee dara. mais soo si deful ak rigueur mais loolu mënut a dox. Mm. te foog naa ne jigéen dëgg la mun na dem xew de mais tey soo ko fekkee bureau du nekk ku nekkoon si xew bi ak ki nekkoon il faut dissocier mm. ni ki <laughs> euh, la la la journaliste Fatou et Fatou Thiam mi nga xam ne tey moom laay toogal sama kër di waxtaan euh, euh, suñu paree journaliste bi. Mm. dinañu dissocier tamit man Fatou Mata Niang mi baax mi nga xam ne man tey leader politique laa am. su nekkee si terrain bi am naa nu may doxee su ma nekkee si si kii bi si sama bureau am naa nu may doxalee à la télé am naa nu may doxale mais su ma nekkee samay xarit des fois samay xarit ñu am na sama benn xarit chaque fois suñu nekkee dafa naan hmm, su ma la filmé ba wane la. duñ gëm ne yow la. <laughs> yow la alors que nit rek la. Mhm. donc nit kii moom tant yaa ngi am cet esprit de na tant que yaa ngi xam li nga bëgg. Mhm. yaa ngi xam ni nga koy defee. foog naa ne luñ la munti jox ci sa àddina war nga ko mën a doxal. man lu may wax rek mooy damay lancé appel au président Macky Sall na gën a xam ne jigéen yi tey day muy metti muy neex ñu ngi koy ñu ngi koy jàppale su su amee ñun dañuy dem taxaw te duñ si am lu ñu si tiitaw lu ñu si ragal leneen li nga xam ne tamit pour doxal réew mi ñun si loolu la ñuy dem te xam naa ni tey suñu toogee ba egsi fii laa si biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñun le président Macky Sall moo tax ñu toog te xam naa ni su du woon jëmbu président Macky Sall ak nag jëmbul la première dame parce que may def benn anecdote gis nga tey élection euh, kii amoon na fi nu mu tudd sax présidentielle yi mu yi man Fadou su ma la nee li may jàppale président Macky Sall yëpp yi mu a am yëpp musuñu ma euh, joxe appui na ma demal élection. Hmm. samay fonds propre laay demee élection élection yëpp da nga si dama si yàqule man damay yàqule te samay alal mooy yàqu parce que alal la élection day jot. ñi nga xam ne lañ la ñuy wax ne leen tey jii ni élection jot na demal jox kii mbubb bi demal jox kii t-shirt bi demal jox kii lii su jotee ñoom ñooy def seen répartition jox ko ñu leen neex te le président Macky Sall loolu santu leen ko parce que le président de ñëpp. te du ko yëg du ko yëg. mosuma ne élection présidentielle bi mujj bi damaa dajeek la première dame rek nii ba ma dajeek moom ñu toog waxtaan mais mu yëkkati ay tissus yëkkati ay t-shirt yu président dama ah lii damaa la demal nga demal nga demal nga politiquer ko mais man dafa doon li nga xam ne dafa ma marqué. parce que dama xam ne en tant que jigéen elle solidaire. te pourtant maa ngi ko doon doo ko gis de. mu ne ma ah xam ne dangeen sonn lool demal nga jël euh, t-shirt yi ak ak tissu yi demal jox waa coalition bi sa waa coalition bi ñu nekk sa gox ak goxaan ñu sol ko te dem politique yi. dama dama si li ma jox euh, si si t-shirt ak tissu dama see politique ba campagne bi jeex donc kooku c'est une femme très généreuse c'est c'est une femme bi nga xam ne. exemplaire c'est une femme bi nga xam ne dafa am moom sens sens euh, de de de de de la solidarité esprit d'équipe xam nga esprit d'équipe dafa baax gis nga esprit d'équipe mooy tax euh, mooy tax euh, équipe dem heureusement ba moom lu may wax tout le temps soo gis tout le temps may revenir sur président Macky Sall parce que moom il a cet esprit d'équipe ah mais moom ñeneen ñëpp ñi nga xam ne tey ñenn ñi nga xam ne ànd na ak ñoom suñu amoon cet esprit d'équipe xëy na dina neex loolu mais par par parloo bi moo métti nee naa la tey si campagne 2019 bi may dem si laa toog la première dame yëkkati dina ma demal tissu yéegi tissu yéegi nii ak mm. t-shirt yi demal nga demal demal nga joxe ko ñu joxe ko gox ba ñu campagne grand yi ba ma demee ñu kontaan loolu ma woo leen ne leen ah première dame dama jox t-shirt yi ak lii ak lii pour te pour wax la rek ne la que tey tant que cette solidarité la mi ngi am mm-hmm. dina gën a mën a yomb si ñun mais ñun damay wax ni xëy na président su yëgulee sax la première dame son épouse moom mi ngi réparé yenn yi. waaw ah, jigéen ci defar. mi ngi def moo tax may ne gis nga jigéen moom si boppam damay keroog wax naa ko télé ñu may retaan may leen tey ba ñu demee élection ba gagné dëgg la de ñu bëri voté nañu de parce que ñun dañu gëm président Macky Sall ah mais première dame soo xool 50 pour cent moom moo tax ñu <laughs> wàcc na meeting moom. parce que xoolal sincèrement da ko wàcc si wàcc bu rafet. Mm. wàcc bi nga xam ne moom moom dooni sax dafa far farut a kenn. te ku mu gis tamit dina la jàppale te mu gis dina waxtaan ak yow te ku mu gis dina la defal dalal la donc loolu moo am importance donc si yaana yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi vraiment divisé el au moins lu sang di divisé moom mi ngi reconstruire moom mi ngi recoller moom mi ngi réarmer moom mi ngi remobiliser loolu mooy jigéen nag de manière mooy la femme elle elle symbolise la femme de manière générale et ma jàppante une première dame qui est comme ça tey jàppal ni kon jigéen fépp fi nga ko mënti tabb c'est dans les instances de décision noonu lay remobiliser noonu lay réarmer noonu lay defee reconfiguration noonu lay retaper noonu lay doxalee kon ñu ànd ñu ñëpp sargal jigéen ñi fas yéene ko wéyal nag ba ci weer bi euh, incha allah ndax weeru jigéen ñi la ñu nekk euh, gannaaw euh, première émission bi ak fat Sow Sarr tey ñu amoon mbégte lool dalal Fatoumata Niang Ba ci weeru mars bi mu jiite UDSR nekk tamit jigéen boo xam ne ci wàllu politique mu ngi xeex di di di fexe aussi ràññeeku bu baax a baax loolu dañ ciy kontaan en tant que jigéen parce que c'est un message fort boo xam ne dañ koy yónnee jigéen ñi tey jigéen su su su suqalikoo rek njaboot yëpp mooy suqaliku góor góor ñi aussi si njaboot gi lañ bokk kon ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey ñëwaatoon ci sa jaar-jaaru parti ak nag li waral surtout nekkoo militante topp ci ginnaaw góor ñi di tàcc nga taxawal sa parti muy tey lu raar ci ci chiquet politique bi dañuy ñaan mu yokk ba jigéen ñi ñëw nekk ci kanam euh, dend ak góor ñi ñu ngi lay gërëm Fatou yoon Mata Dieng Ba dëgg la euh, Fatou man tamit maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di la yow tamit comme li ma lay wax rek di la sargal bu baax a baax a baax a baax di wax ni tamit euh, ñun jigéen day lu may wax rek mooy nañu gëm te xam naa ne jigéen moom mooy doxal réew parce que ki nga xam ne mooy doxal kër au-delà de d'avoir un mari ak lépp jigéen moom mooy doxal kër mooy doxal réew mooy doxal famille mooy doxal lépp lu may wax rek mooy dama si profité tamit di euh, sargal képp kuy jigéen ku ñu doon déglu di sargal tamit képp ki nga xam ne yaa ngi jigéen nekk dans la dans la majorité présidentielle di sargal tamit képp ku jigéen nekk ci pré ci suñu parti muy union pour le développement du Sénégal renouveau beneen bi tamit nag mooy damay sargal kenn ki nga xam ne kenn la ci man kenn ki nga xam ne su ma nekk tollee fii tey moom la kenn ki nga xam ne ku bu ma kenn gëmul moom la kenn ki nga xam ne tamit fu ma su ma bët xonkee moom la muy sama waajur muy sama yaay Fatou Diouf <laughs> dama koy sargal vraiment di ko sant di gërëm di gërëm bu baax euh, soxna Fatou yow moom damay wax ni rek yow moom dañ lay ñaanal gudd fan wérgu yaram ba nga fekkee sa njëriñu njaboot yépp vraiment di la gërëm di la sant Fatou jërëjëf Fatoumata Niang Ba émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel suñu page ci youtube ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ci dem ak tey jaaw jàllu mi ne woon ci jàppandal gi ñu ngi koy gërëm ñu yendoog jàmm